avant ñuy ñëw ci euh, li nga xamante ni moom moo xew biir Sénégal mooy euh, Mali bi nga xamante ni CEDEAO jël na décision suspendre ko ci instance yëpp. Euh, décision grave décision ma wax la <laughs> déjà li may laaj mooy évolution bi ci transition bi ni ñuy demee dellusiwaat case de départ crise bi ni mu ni mu ni mu. en su ma ci bëgg wax lépp. Hmm. émission bi yëpp ci loolu lañ koy consacré. Hmm. sa sentiment laa bëgg nga. partager waaw moom laa bëgg a wax ak yow en tant que député de la CEDEAO. parce que mbir la mooy suivre étroitement hmm. euh, euh, xam nga Sénégal ak Mali ñoo demandoon indépendance ñu doon fédération du Mali kon loolu ne serait-ce que pour cette raison historique daf ñuy intéressé te bokk naa ci ñuy xalaat pour wéyal vision président Abdou Diouf yàlla na fi yàgg te wér maa ngi koy nuyu am mën naa am mu ñu seetaan instant bi hmm. ndax mi ci réew mi hmm. ku nu muy màggatee la ku ormal askan wi la. ah mi ngi Sénégal. waaw mook ak njaboot moom dafa yéene ñi jàngat jàngee ci fédération du Mali la ko sos ak la ko yàq jàngee ci expérience su fédération confédération sénégambienne lu ko yàq ak la ko sos jàng ci UEMOA CEDEAO ngir wéyal fexe ba dajale suñu réew yi ñu bokk benn kilifteef. donc lu may lu ma lu ma intéressé la ensuite sama dëkk dafa situé wu ci corridor Dakar Bamako raay bi dañ fa jaar alors tey it sax ndaw kundaa yi ak popula peuplement wu kafrin Mali daf ci am. daf ci am histoire. Euh, waaw les les ndaw les documents bi ñu ñëw foofu waaye ci gàttal daal li ma xam mooy depuis la chute d'ailleurs dama bëgg indiquer ne. surtout président de la République surtout chef d'État musiba gënu ko rëy ci réew xam nga papa diggante summeeku ak solo yaramu neen dox si foofu fi fi mali toll nag ci yaramu neen nañ nekk te yaramu neen nag su yàggee mën nañ laa bett mbaa nga sàggoon te loolu du Mali rek la tàmbalee problème Mali amoon na lu fa doon nux nuxi amoon na péril terroriste et djihadiste j'allais dire islamiste mais li ko gën a aggravé mooy surtout Muammar Kadhafi ñi dem ba xew Mali xew Mali ñii jéem saafara ko sur le plan militaire ak sécuritaire g cinq Sahel créé wu fii ak rivalité ci nekk ak CEDEAO ak yeneen organisation yi jékki-jékki Tchad daanu te ma fàttali leen ne Tchad bi Idriss Déby da euh, président Idriss bi daanu ñu rey ko wala mu faatu Yar Salam mooy deux ans fi président Macky Sall demee ñu invité ko ci G5 Sahel yëkkati woon nañ un milliard ou quelque chose comme ça jàppale leen ci waxuma la sax rek teewaayu armée sénégalaise ak force de de defence yi nekk Sénégal nekk Mali. Ibrahima Boubacar Keïta ngay wax. non non avant waaw bi après nag <laughs> c'est-à-dire l'histoire du Mali dafa yaatu. Mm. gis nga depuis coup d'état yi fay am. chaque coup d'état am na conséquence ak séquelles yu mu bàyyi. ba ci ATT bi mu fay jóge ko ak na Sénégal taxee woon IBK daanu. après avoir été réélu élection as législative moo indi aggravation problème bi soulèvement am bon mu daanu donc la fa xew dem na ba ñun bi ñu mujj def session réunion délocalisée à Freetown ñun dañu ñëw parlement CEDEAO am ñaari délégation député yi mujjee prêter serment bokk ci assemblée bi ñu tas yaa ngi dégg ak député yoo xam ne ni dañu leen tuddee député mais CNT bi moo leen yebal la le parlement euh, de la CEDEAO rejeté leen ne on vous a ñoom ñëpp dellu leen seen réew ñu bind ñun cour de justice de la CEDEAO pour demander ko moom wax ñu kan moo am légitimité wu toog ci diggante bi lii xewaat CEDEAO jël décision bi ma ne décision grave mais sans doute motivée par des informations que man je n'ai pas entièrement parce que chef d'État yi ñoo ko jël et de gouvernement mais nag lu mat a bàyyi xel la lu mat a topp la warta yàgg warta yàgg parce que fàttali ko leen Mauritanie bokkoon na CEDEAO génn ci Mali bu génnee CEDEAO bu demee ànd ak Mauritanie mbaa mu ànd ak yeneen pays yooyu yëpp ay conséquences la yoo xam ne nii mais comme on ne fait pas la diplomatie sur la place publique te li may wax nii maliens yu dégg li ñuy làkk moo xam wolof la war a France ñu ngi fi yeneen peuple yu dégg li ñuy làkk ñu ngi fi ngeen may ma comme la diplomatie est un sujet qui doit faire être l'objet d'un c'est un domaine réservé du chef de l'État parce que li ci làqu su fa bëri sécurité sûreté intangibilité euh, intégrité territoriale yooyu yëpp ma yem foofu ci jàngat. su fekkente ni dañoo suspendre Mali tey ñu bëggoon nga leeral lenn muy sama yaay ja nekk fële di xaar opération tabaski dem ba mu ko jënd ay cuub war a ñëw yan conséquences lay am parce que buñ ñu nee CEDEAO dañ naan libre circulation des personnes et des biens. suspension ban njeexiteel lay am économiquement parlant ci koom-koomu réew bi nga xamante ni mooy Mali ba répercuté wu ci Sénégal. de toutes les façons Sénégal chef de l'État du Sénégal du seetaan Mali ak peuple malien le Mali éternel ñu loru du seetaan itam dara lu mën a yàq parce que li ñuy léegi Mali dafa bëri i compris question bi nga wax li ma bëgg a wax mooy damay bañ euh, dugg ci loo xam ne du sama domaine mm-hmm. man représentant de populations la ci doxal politique extérieure réew mi chef de l'État la te ñun suñu doctrine ñun waa parti socialiste question frontière ak question diplomatique pour ñun en tout lieu en toute circonstance et à tout moment dafa war a nekk objet de consensus dañ ci war a bàyyee cër président Afrique ndax moom li muy xam ñun ñëpp duñ ko xam jàpp naa ne euh, suspension bi dañ leen suspendre ci participation ci instance maanaam du ñëw conférence des chefs d'État parce que président bu ma nekk bu ko reconnaître wul du fa mën a ñëw institution yañ tabax te euh, transition bi lañ ci waxante woon antuwul mu nekk genre rebolote mun na nekk décision wala décision boo xam ne ni position de négociation la moo tax ma ne décision grave qui peut avoir des conséquences incommensurables mais décision qui doit être encadrée situation qui doit être suivie de très près chef d'état état yëpp ñu ngi fa am ay ambassadeur am fa ay nit am ñu fa nekk buum gi dogul le fil du dialogue n'est pas rompu li nga wax dégg naa ko bu baax loolu chef de l'État du Sénégal moo lu moo moo ñu ko gën a xam ne ñu wóor ne lu ko itteel la lu ko soxal la te bu rek relation état ak état relation peuple la à tout point de vue sur le plan culturel sur le plan culturel sur le plan commercial sur le plan sur tous les plans il y a énormément de Maliens nés au Sénégal ou nés de parents sénégalais ou de Sénégalais nés au Mali ou de parents maliens donc. très bien foofu la léegi ñu ñu jógee Mali dellu si Ndakaaru. Euh, Marie. Ah. Mhm, ñun dañuy.